alhamdulilah rabil aalamiin sallallahu wasallam ala rasulihil amiin nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain eh, kon mi ngi del si waat suñu dars charx thalathatul usul usul thalathatul usul ci dars bi ñu génn jor nañ wax ne borom téere bi dafa tàmbalee téereem bismillahi rahmaani rahim muy albasmala daf ko tàmbalee bismillah moom àggul sax ci arrahmaani rahim waaye ci bismillah moo waxoon leen ni loolu borom xam-xamu lislaam yi téere boo jël ci diine da fekk borom bu koy taalif day tàmbalee bismillah ñu waxoon ngir lan roy suñu téere bi di alquran 114 surat la 113 yëpp bismillah tàmbali ba mu te suratu suratu tawba baraa beneen bi mooy roy yonent bi alayhi salaat wasalaam lettre yi mu daan bind ay buur bi mu ñëwee nekk yonent màkka dafa xooloon ci saxaaba yi ñu mën a bind ñu bindal ko ay lettre mu yónnee ko buur yi lettre bu nekk dafa doon tàmbale bismillahi rahmaani rahim min muhammad ila fulan kon roy aussi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bindam loolu mooy mbir mi roy yonent bi alayhi salaatu ci bindam euh, waxoon aussi ne bismillah bu fekkee wax la bu fekkee wax la comme ça kuy jàpp wala kuy dugg toilette bismillah nga yem basmala rek nga yem bismillah doo àgg ci rahmaani sooy lekk bismillah yaa xulaamu sammillaaha yow xale bi booy tu booy lekk tuddal yàlla waxal bismillah booy dugg toilette ngay ngay ci bunt bi nga ne bismillah allahumma inni a'uuzu bika minal xubusi wal xabaa'is dóora dugg jiital sa tànk gauche booy génn sa kër bismillah tawakkaltu ala allah gis nga bismillah amul rahmaani rahim bismillah tawakkaltu ala booy naan bismillah kon kaddu moom booy wax rek bismillah la mais booy bind nag bind da ngay àgg ci rahmaani rahim moo gën a nekk sunna booy mee ci bismillah gi ci bind doy baax na mais liñ gis si bind mooy yonent bi lettre am am bismillahi rahmaani rahim kon àgg ci rahmaani rahim gi ci wàllu bind moo gën alquran a yëpp ci kaw bismillahi rahmaani rahim du bismillah mais dafa àgg ci rahmaani rahim gi ci loolu bind la loolu mooy manhaj bi nga xam ni moom la ñuy bàyyi xel foofu mu waxoon ni annahu yajibu alayna taallumi taallumu arbai masaila war na ñu ñu jàng ñeenti masala ba jiitu mooy al ilmu mooy xam mooy mooy al mooy xam-xam masala bi njëkk a jàng war a jàng ci diine mooy jàng xam-xam xam-xamu yàlla nee na yonent bi nee na xam-xamu diine bi bàyyeekoo ci yàlla ak yonentam xam-xamu diine bu lay may jaam bi mën a xam maarifatul abdi rabbihi wa diinihi wa nabihi xam-xamu diine tànk mayu la nga xam kuy yàlla xam kuy yonent bi xam luy lislaam baaxagut baaxagul moo tax xam-xam boobu ilmu boobu ñett yi la dugal ci suuf mooy xam-xamu diine dalay may nga xam ko yàlla ba doo ko bokkaale wéetal ko xam ko yonent bi ba mooy sa modèle moom ngay topp topp sunnaam doo topp keneen xam luy diine lislaam ba doo tënku ci beneen diine bu dul lislaam ñett yi bu nekkul ci yow kon xamagoo xamagoo xam-xam bi nga am jëriñagu la xam-xam bu la may nga wéetal yàlla doo ko bokkaale nangu ne yàlla dañ koy wéetal ci turam ak i melokaaram ci nguuram ak ci jaamu xam-xam bu la may nga xam ne lislaam mooy diine dëgg nga topp ko xam-xam bu la may nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom la yàlla yónni moo yonent moom la ñuy topp moom lañuy rey moom la ñuy copier moom lañuy ñuy topp loo nga koy topp ñett yooyu bu fekkee ne amut xam-xam bi day nekk xam-xam boo xam ne du tege moo tax xam-xam boobu yëpp mu yàlla ak yonent bi ak li nga xam ne mooy lislaam da koo teg du ci làmbatu bil adilla doo ko def ci làmbatu bil adilla ci ay tegtal tegtal yoo xam ni li yàlla wax ngay jël li yonent bi wax ngay jël dundee ko lislaam bil adilla mooy tege ci li nga xam ne mooy mooy ay tegtal loolu moom la tuddee salaasatul usul kon loolu mooy li nga xam ni ci tënk mooy liñ jëloon ci dars bii passé bu njëkk bi ñaareel mu ne masala yooyu soo ko jàngee muy xam yàlla ak yonent bi ak lislaam da nga koy jëfe al amalu bihinna n'est-ce pas boo xamee li yàlla digle xam li mu tere xam li yonent bi digle xam li mu tere xam li lislaam digle li mu tere te li lislaam digle yu tere mooy li bàyyi ko ci yàlla ak yonent bi da nga koy xam yem fa da nga koy jëfe al amalu bihinna da nga koy jëfee da koy pratiquer li mu dégle pratiquer li mu tere bàyyi loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi ad daawatu ilayhi mooy xam-xam bi danga nga ciy woote xam-xam bi la may nga xam ku yàlla ak yonent bi ak lislaam teg ko ci ay dalil da nga ciy woo nit ñi ko xamagul ñu xam ko soo ci woo nit ñi day am ay ay saaga ay xas ay menace ay violence ay tiitalaate ay xuuxalaate moo tax sabru dafay ñëw su boobaa daawatu ilayhi su jàllee rek mooy as sabru alal aza fii mooy nga muñ lor yi ci tege daaw ak lor ñoo ànd dañ lay saaga di la xas rawatina jamono ji ñu nekk nii nga xam ni nit ki bu njëkk boo nekkutoon dëkk ba mu nekk mënoo ko gis waaye léegi aajo woo nekk dëkk bi mu nekk amal numéro téléphone am rek woo ko saaga dugg whatsapp am woo ko saaga dugg telegram am woo ko saaga envoyé ko message woo ko saaga saaga yemul foofu mën ngaa jël nit ki monteel ko photo bu bon moo loo xam ne lii koo gis xam ne lu bon la monte photo waa ji ne waajaa ngi ni golo la wala mbaam xuux la <clears throat> wala kanaara la wala wala wala nangam monteel ko moo jël nit ki montel ko nopp mbaam xuux wala nopp golo saaga la kooku asabru alal aza fii ci lay dugg léeg lekk imité baat nit ki mi ngi ci wax loo ko loo xam ne waxu ko imité baatam des fois nga def loo ko lu ñu tuddee euh, deepfake mooy jël vidéo wax loo ko lu mu dugal ko ci logiciel bu wax loo ko lu mu waxut pour yàq deram pour atteindre ko pour pour yàqal ko liggéeyam pour méttidal ko ba li muy def ko mën ko bàyyi loolu lépp dafay dugg ci li nga xam ni mooy Euh, as-sabru alal aza fiihi sabru alal aza fiihi ci jamono yu njëkk yi métti woon na mais jamono ji la gën a métti léeg-léeg mënuñu laa atteindre sa njaboot la ñuy àgg sa njaboot des fois ñu atteindre li nga xam ne mooy sa njaboot ngir man laa man laa lor mu tegoon ci ne yàlla waat na ne ci alquran ne ci jamono ak ci waxtu ne mboolem doomu aadama ñu ngi ci pertaange ba mu des ñeent ñeent ñooñu mooy melokaan bu njëkk bi mooy koo xam ne gëm na yàlla loolu mooy ci xam. li mu xam mu gëm ko li mu jàng ci dalil ci alquran ak sunna mu xam ko ba pare gëm ko weddiwu ko li mu gëm mu daal di koy jëfe amilu salihat ñetteel ba loolu mu nga xam ne gëm na ko di ko jëfe da ciy woote dëgg googu da ciy woote du ci tàyyi da koy jaral waaye da ciy muñ loolu moo taxoon mu naan imaamu Shafii nee na saar wi bu fekkoon ne yàlla wàcceewul lu dul saar wi ci aw aw aw xeetam dana leen doy law ma anzala allahu illa hadihi sura ala xalqihi xujjatan lakafathum moo waxoon ni wax ji alimaam Muhammad ibn Abdwaab toxal jëlee ko ni ci Shafii nekkeewul nii moo tax yenn borom xam jàpp sax daf koo riwaaye bil maana affaire bi boo demee ci tafsir ibnu kasir ci suratul asri mi ngi fa mais ibnu kasir indeewu ko nii Muhammad ibn Abdul Wahab rek lañ gis mu indee ko nii al bayhaqi ci sunanam indi na ko mais indeewu ko nii ah, ki nga xam ne mooy al imaam Muhammad ibn Abdul Wahab rek moo ko indee nii moo tax Cheikh Abu Ubayda al Misrati mu ni dafa mel ni Muhammad ibn Abdul da koo solo ci maanaam mais solo wu ko ci alfaas Shafii waxee wu ko ni moo tax euh, euh, duñ wax ne lii waxu Shafii la waaye maanaa waxu Shafii la maanaa waxu Shafii la euh, tey kon li ñuy dugg foofu mu tekki ne Buxaari yi wax na ni sukkandiku ci loolu ak aaya bi nga xam ne mooy faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dambika wa lil muminin wal muminat mu ne l'islam li muy wane mooy diine ji xam-xam moo ci jiitu wax ak jëf parce que yàlla ca wal asri iman la jiital mooy ngëm te ngëm mënta ànd ko du xam-xam comme ilmu mooy jiitu sax iman li ngay gëm da koy xam no da koy xam fii mu ne faalam laa ilaha illallah bi mu fi ñëwee baat bi gën a fort ci waxul wax ko dana xam ko da koy xam parce que di wax baat bi te xamoo lu muy tekki amul sens moo tax da nga koy koy xam ba pare moo tax mu ne al ilmu qabla al qawli wal amal bunt bi loolu la ko Buxaari jëlee aay bi jóbbu ko ci téeréem mu ne aay bi boo ko jëlee lim lay jàngal mooy daal xam-xam mooy diitu wax ak jëf ci diine mais ñun dafa mel ni safaan ji la nekk jamono mi ñi dañuy wax sans xam-xam di jëf sans xam-xam nekk jamono joo xam ne nit ñi dañuy wax sans xam-xam di jëf sans xam-xam lu tax jamono joo xam ne ku mu neex nekk mufti ku mu neex nekk ustaas ku mu neex nekk borom xam-xam ku mu nekk ibnu kasir neex nga nekk ibnu kasir wala wala wala nawawi wala ibnu hajar amal connexion rek yor portable mën ngaa wax mën ngaa ne xaala boo ne boo ne wax xaala wala nga mën a jàng addis mu wàcceeku ci ay groupe ñu ne borom xam-xam nga moo tax jamono ji doy waar lañ nekk moo tax da ngay gis jamono ji bu njëkk ñi ñu doon ñi doon invité ci palaato yi ñuy analyser mooy ay politologue ay professeur mais léegi ay tuutologue ay kullologue ak ay waxkatu xalaatologue ñoom la ñuy invité ci plateau yi ñuy wax nga xam ne ñu toog di wax seen xalaat kese nekk ay waxtanu waxkatu xalaatologue lu ne la ñuy wax tout duñ bàyyi dara lu ne la ñuy wax léegi ñooñu tey moom nit ñi su ko defee ñu dagg ko dégg nga diw li mu wax bi sañatul ñëw ci bi sax di wax politologue bi sañatul ñëw ci télé bi di wax analyste bi sañatul ñëw di wax lu tax mooy am nañu toog seen place am nañ connexion mën nañoo wax xam nañ li xew comprendre nañ euh, xalaatu sénégalais ak xelu sénégalais ak société sénégalaise toog di toog di analyser comme ñëpp ah. di analyser comme ñëpp di wax comme ñëpp ñëpp di leen déglu aussi ku mu neex nga jekki jékki gis benn ustaas bu bees mu naan la lii non lii gars yi ñoo koy araamal mais araamul man parce que man fii laa ko teg te waaw bi ci wala aadi wala aadiyaati xamul lu muy tekki baa bi ci basmala sax xamul lu muy tekki mais sañ naa teg am na connexion mën naa dugg te kenn te kenn mënu ko téye parce que euh, internet kenn moomu ko kenn moomul Facebook kenn moomul WhatsApp kenn moomul Telegram kenn moomul Snapchat fu ko neex dugg comme am na connexion day am compte rek am compte envoyé lu la bu la neexee ibnu xajar nga ne waxam ji fi mu ko teg sax wérul imam malik masala bii da cee juum te lii imam malik di wax yow xamoo ko yow xamoo ko loolu tey jamono ju doy waar la loo xam ni loolu moo tax léegi wax mooy jiitu xam-xam wax mooy jiitu xam-xam jëf mooy jiitu xam bu njëkk da ngay xam door a wax dangay xam door a jëf mais nit ñi dañuy dañuy wax te xamuñu da ngay gis nit muy jëf loo xam ne lii muy jëf boo ko laajee fan la mu ne ah nee baax na nee baax na diina nag du nee nañ waaye euh, fu ko yàlla wax ak yonentam kon tey mu ne eeram xamal rahimakallah gis nga cheikh bi ñuy ñuy taxé dafa tàng day yéeféerloo day rey ay nit day génne ay nit ci lislaam téeréem yëpp bu naan buy wax na la iamal xamal arshadakallah yal na la yàlla jubal ialam xamal rahimakallah yal na la yàlla yërëm koo ñaanal yërmaane da nga koy da nga koy takfir koo ñaanal yërmaane da ngaa bëgg mu dem safara koo ñaanal yërmaane da nga koy génne ci diine lislaam dafa am contradiction ak li mu bind ci téeréem léegi nit ki da koy juge li mu bind bu ko juge ci liñ ko waxal nit ki atte ko ci li mu bind moom bu ko atte ci liñ ko waxal rawatina bu dee ñu ko waxal dañ ko contre ay noonam lañ te waxoon naa leen ni pour ñu xam pas-pasu Cheikh Mouhamad ibn Abdul Wahab dañuy bàyyi ba téere bi jeex dina ñëw ci risalatu Mouhamad ibn Abdul Wahab ila ahlil qasim mu tekk benn téere bu mu bind boo xam ne page yem la ay borom xam ne qasim ñoo ko bind lettre ne ko dañoo dégg na yow fa nga nekk muy ca nooru Arabie Saoudite da ngaa weddi saxaaba yi weddi borom xam-xam yi digle toj ay bàmmeel di yéeféerloo ay nit mu tontu leen tontu boo xam ne bu téere boobu ku ko jàng ne man lii laa gëm mu ne leen li ma gëm mooy li fi yonent bi bàyyi woon ay aymatul arbaa saxaaba yi bàyyi ko fi am aymatul mazahib al arbaa bàyyi ko fi ñu néew seen ginnaaw seen ndongo dilim dilim ba ak si jamono ji loolu laay wax ndax indi ma lu bees damaa ñëw rek di beesal waaye indiwu ma lu bees lépp lu ma wax dama koo teg ci li nga xam ne moom mooy tegtal loolu ñu bàyyi ci bu baax. moo tax mu ne rahimakallah yàlla na la yàlla yërëm yow mi may waxal yow miy jàng téere bii annahu lii mbir mooy yajibu war na ala kulli muslimin su ko waxoon doy na waaye mu taakiid ko muslimatin julit bu góor bee bu jigéen bi taallumu jàng salaati ñetti haadihi masaili ñetti masala yi wala amalu bihin na jëfe ko diine moom da ngay jàng di jëfe jàng di dajale xam no damay dajale ba ci kanam après ma jëfe amul ci diine damay dajale après ma jëfe amul ci diine dangay ngay dajale di jëfe li ngay jàng da koy jëfe ni ko Abdullah ibn Umar waxe nee na saxaaba yi dañ daan jàng aw saar yàgg ci lool am na ci ñun ñoo xam ne jàng nañ Bakara fukki at am ñu ko jàng juróomi at am ñu ko jàng ñetti at am ñu ko jàng juróom-ñaari mais dañ jàng aaya comprendre ko di ko jëfe boole jàng mokkal jëfe boole jàng mokkal ak jëfe lu tax mooy xam-xam bi ngay jàng boo ko jëfewul dañ la koy laaj yomal xëyam moo tax fu nga jëfe ko mu ni al ula bu bi masala bi njëkk bi mu bëgg ñu jàng ko fii mooy anna allaha mooy yàlla ñu bind loolu amul werante amul werante yàlla moo ñu bind nit yàllaa ko bind nit suñu borom moom moo ko bind ni ma leen ko waxee woon yàlla ñeenti façon nit la bind ku am ndey ak baay mooy li ëpp ci doomu aadama yi ku amul ndey baay mooy aadama ku am baay te yaay mooy xawa ak ku am yaay te baay mooy isa ku nekkul isa doo aadama doo xawa am nga ndey ak baay koo mënti doon koo mënti doon yonent yëpp nit ñu baax ñëpp am nañ ndey ak baay ñett ñi rek ñoo génn ci alqaida al amma muy règle générale bi ku dul ñoom yaa ngi ci biir am nga ndey ak baay mais ñett ñi la yàlla bind ci miracle ci mujiza ci kéemtaan pour wane ci kàttanam inna masala isa indallahi ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fayakun kon moo yàllaa ñu bind amul siki sàkk ku bind asamaan yàlla suuf yàlla oxygène bi ñuy nooyee yàlla garab yi yàlla géej yi ndox yi yàlla rabu àll yi yàlla kon yàlla mooy alxaaliqu mooy albaari'u mooy almusawiru yàlla mooy aji sàkk mooy créer mooy melal mooy jëmmal mooy jëmmal dara almusawir ah kooku mooy yàlla alxaaliq mooy sàkkat bi albaari mooy kii sos nga xam ne moo ko tàmbali ki almusawir mooy ki nga xam ne moo ko melal jëmmal ko melal ko ni mu mel kon yàlla yooyu ci moom la daje leneen luy bind néew fii walam yetruk naa yàlla bàyyi wuñu te mësuñoo bàyyi xamalan neen nga xam ne digaluñu terewuñu xamalan e lam yamur naa walam yanhana yàlla bàyyi wuñu rek binduñu ne bay comme bàyyi ma xam nga bàyyi ma yi suñ borom da leen a digal digalu leen dara daa mu leen tere bàyyi ma daa am lu mu ko tere terewuñu ko dara xar am na lu araam ci moom ni ne ko lii yàlla moo ne bu ko def yow xar yow ginaar yàlla moo araamal lii ci yow am na yow euh, kanaara yàlla moo daganal lii ci yow mën nga kaa def am na mala yi yàlla amul lu mu araamal ci ñoom wala mu daganal ko ci ñoom garab yi garab yi yàlla amul lu wala mu daganal ko ñoom géej noonu daf leen a bàyyi noonu mais ñun nit ñun nit daf ñoo bàyyi noonu déedéet lan la bal arsala ilayna rasulan yàlla fa yónni ci ñun yonent yonent nit am na wala amul yonentu nit moo yóbbaale yonentu jinne yonentu xar mos ngeen ko dégg yonentu gëléem yonentu mbaam yonentu golo yonentu yoo du ngeen ko dégg lu tax mooy yàlla yónniwul ci ñoom yonent parce que sàkkuwul ci ñoom dara ci yéen la yónni yonent mooy doomu aadama yi léegi yonent bu ñëw nekk yonent doomu aadama yi dafa yóbbaale jinne yi waxoon naa leen yaa yaxlamu daffir qum fa anzir yow mi muuru yow mi sàngu yonent bi ginnaaw bi mu jegee ci xeer wa qum jógal fa anzir nga waaraate yàlla indi qum muy fiilu bi ah, faa'il bi damir mustatir euh, taqdir bi mooy anta qum anta dañ koy nëbb ah fa anzir fiilu amr la encore anzir anta faa'il bi dañ ko nëbb fiil bi ñëw na mais maf'ul muy complément d'objet direct bi COD bi dañ koo xasaf waxul qum fa anziri naasa bu noon qum fa anziri naasa ko nit ñi rek lay waar mais qum fa anzir mu xasaf ka te xasful maf'ul yadullu ala al umum maf'ul buñ ko xasafee dafay généraliser mu généraliser ci lépp lu am xel mën a wax mën a dégg ngi ci biir mu ñu te gindi mu nit ak jinne loolu moo tax mu ne fa man ataahu yonent boobu yàlla yónni ku ko topp lan mooy résultat bi daxalal janna da ngay dugg àjjana ku topp yonent foo jëm àjjana wa man asaahu ku mooy yonent foo jëm daxalal naar da ngay dugg safara léegi lan mooy wane ku topp yonent dem àjjana ku mooy yonent dem safara mu jox ñu misaal mu jox ñu misaal te yonent bu mu yónni woon ci aw nit nit ñi mooy yonent ba yàlla tàbbaleen safara buñ ko toppoon mu yóbbu leen àjjana mu jox ñu ci misaal misaal bi man yàlla yónni naa ci yéen ab yonant rasul boo xam ne shaahidan aleykum day ñëw euh, ëllëg yowmal xiyaam nekk koo xam ne yéen xeet yonant ci àl muhammad dafay seede seen digganteeg moom kama arsalna comme ni ñu yónnee woon ilaa firawna ca firawna ak aw nitam rasulan ab yonant yonant boobu kan la Muusa léegi firawna ba ñu yónnee ci moom yonant moom aw nitam lañ moo xew lan moo xew fa asa firawnu rasul firawna daal di mooy yonant ba ah ba ko mooy lan moo xew fa axasnaahu axzan wabilan wabilan ay shadidan wabil mooy shadid yàlla nee nañu ñu daal di koy mbugal mbugal moo xam ne mu metti la tey te nit te firawna yonent bi nga xam ne moom la mooy muy Muusa mbugal ko yéen yonent bi ma yónni ci yéen moo gën a foor Muusa muy Muhammad kon su ngeen ko mooyee mbugal mu raw mu firawna ak am am moom ngeen di am wu yàlla dugal fii aaya bi wala mooy intérêt borom téere bi indi aaya teg ko pour wone ku mooy ab yonant dañ lay mbugal lan mooy tegteel bi mooy Firawna aw nitam bi ñu bëggee moyee yonant Moussa dañ leen mbugal te Moussa Muhammad ko gën kon boo ko moyee moo gën a garaaw moo tax booy gis ci alquran toujours yàlla di wax ci ñu weddi yàlla daf leen di mbugal mbugal mu métti war ngaa posé wu rek yàlla waxul mbugal pourquoi toujours yàlla di ci yokk mbugal mu métti azaban fii axzan wa bila azaban alima azaban azima azaban shadida lu tax yàlla di indi baat yu dëgër yooyu mooy parce que ñoom amuñu lay yàlla dalee na may xel yónnu yonant indi téere yonant yi jàngale waaraatekat yi waare ànd ak loolu ñu féetéerlu kon li nekk ñoo ko tey amoon nañ possibilité jub léegi ñu continuer dëgër boobu féetéerlu te yàlla yónn na yonant indi wàccee téere téere bi yonent bi jàngale ko yonent bi bàyyi fi xam-xam bi ñu doon yonent bi di jàngale xam-xam di leeral ànd ak loolu xam-xam nu mu leeree dalil nu mu leeree euh, diine nu mu leeree ñoom ñu bañ a topp diine moo tax seen mbugal mën ta oyof lu tax mooy li ñuy weddi dafa am ay preuve te ku weddi lu am preuve bokku te ku weddi lu amul preuve boo weddee lu am preuve moo gën a garaaw parce que preuve yi dafa nekk ay preuve yoo xam ne yu convaincant la yoo xam ne ku ko topp sa logique dafay dugg sa bopp boo ubbee sa xel gis nga ne maa bañ buggumaa gis dëgg buggumaa dégg dëgg buggumaa topp dëgg parewoo sax pour xam dëgg léegi yàlla bu lay mbugal day métti nag tax mooy moyen yëpp ñu ngi woon sa kanam pour nga gëm yow mooy li ñuy bëri bëri yëpp pour nga gëm ak xel meeg tegtal yu leer yi nga weddi ko weddi gi nga ko weddi te mu leer naan ñi moo tax sa mbugal mën ta woyof moo tax yàlla buy wax ci alquran di jëfandikoo baadu tar fii axzan wabila am na azaban alima azaban shadida azaban azima loolu lépp ci ñan la ci xaqu alkafirin nga ko wax lu tax mooy dañoo weddi lu leer lu leer soo ko weddee dafay métti li dafa leer nañ moo tax boo demee tribunal soo de soo violé loi bu ñëpp xam sanction bi day gën a métti ko bu dee yow xamoo loi bi parce que lii dafa leer naa ñi nga violé ko yow li xam ne nag dafa làqu xamoo ko dañ naan ah, xëy na yow xamoo woon ne lii état da koo tere nguur da koo tere daan gi mën naa woyof waaye lu leer naa ñi soo ko weddee daan gi day day day li ñuy dafay métti dafay dafay métti loolu moo tax même chose la ñaareel bi kon masala bu njëkk bi mu ñu bëgg xamal mooy yàlla mooy aji sàkk moo ñu moom moom borom bi subhanahu wa taala te bàyyiwuñu neen dafa sàkk ci ñun ñu jaamu ko jaamu googu dafa yónni yonent wàccee téere yonent boobu bu ñu ko toppee dem àjjana suñ ko toppul ah yàlla mbugal ñu safara mooy première masala bi ñaareel bi mooy anna laaha naka yàlla laa yarda yàlla du gërëm te du mës a gërëm mukk an yushraka ñuy bokkaale maahu ak moom ahadun kenn kenn ahadun kenn fii ci jaam gi ah? léegi ahadun nakira la ahadun nakira la anna laaxa laa laa boobu naafiya la ah day day baatu nakira bu ko nafi jiitoo wala nahi wala shat am la mooy ahadun kenn ku mënti doon yonant malaaka jinne nit yàlla nanguwul ñu bokkaale ko dara dara ahadun ak lenn lenn lu doon fi ibaadati yi ci jaamoo gi ñu koy jaam loolu moo tax mu yónni mu ne laa nabiyun mursal yonent bu yàlla yónni wala malakun wala malaaka muqarrabun bu jege te malaaka yëpp jege nañ yàlla ka ca gën a jege ci yàlla ci malaayika yi mooy jibril wala xayruhuma ak leneen lu dul ñoom ñaar ñii ak leneen lu dul ñoom ñaar mën nga am ci mbindaa foo ñu gën a foor ñaar ban exemple la joxe dafa tàmbalee ci li gën a fort léegi boo tàmbalee ci lu gën a fort kon li gën a fort taxul ñuy wax lan moo gën a fort ci yàlla moo yonent ak malaaka am nga lu ko gën a fort léegi yàlla bu nanguwul su fekkoon lim la bëgg a wax mooy bu doon yàlla dina nangu ñu bokkaale ko kon kan lay nangu yonent ak malaaka mais li ñuy foor fort yàlla nanguwul ñu bokkaale ko ci yonent ak malaaka léegi ku dul yonent ak malaaka nag ah ku dul ak malaaka président de la république bu ne bu ne su may sanctionné. lii ku ko def su may sanctionné ministre ak député moo yem ci man nga ne ah non non kon man bokkuma ci président ministre ak député la wax man citoyen simple la xal dina ko nangu man li lii nii ma tere ku ko ku ko jalgati yaa xam ministre nga wala député sama yoon nekku ci duma la may dara du ma la baal ngay non président ministre la wax ak député loolu lan la bëgg a wax. moo ñi gën a fort ci ci ndomba ak garaat gën maa jege muy ministre ak député su dee bu ñu defee lii ma sanctionné leen kon yow boo ko defee parce que sanction bi du gën a doy war day métti même bu fekkee yàlla du toléré yenoon yi nga xam ne ñooy ba bani aadam ñoo gën a tedd ci doomu aadama yi yàlla du toléré li gën a tedd ci li mu bind mu bokk ci muy malaayika yi ñu koy bokkaaleek moom fa kayfa lu dul ñoom ñaar kon du ko baale mu ne wa dalil tegtal bi wañu na yàlla nanguwul bokkaale ci dara qawluhu taala waxu borom bi wa anna al masajida xam le ne jàkka yi jàkka yi yàlla loolu waroon nañ ci bàyyi xel de Sénégal jàkka yëpp dañ leen a catégoriser yàlla jàkkay pa nangam jàkkay kuréel nangam jàkkay mbooloo nangam jàkkay askanu nangam ngay dégg jàkkay tukulóor jàkkay jàkkay wolof jàkkay lu ne ngay dégg wa anna al masajida loolu bu fekkee dañ koy def tam yiisan tam yiis pour ràññee rek pour xàmmee xàmmee kaay la du par parloo dara newu ci mais léeg-léeg dafay jéggi ràññee day jéggi ràññee pour xam pour def différence ràññee mais des fois par parloo da ciy nekk te loolu mooy liñ tere warul àgg foofu. Hmm? bu fekkee pour différencier rek ñu ne jàkkay jàkkay nangam ak jàkkay ñoom nangam ak amul problème jàkkay waa ginnaaw raay noor ak waa ginnaaw raay sud la amul problème dañoo bëgg a xam ne fii ginnaaw raay noor la mais bu fekkee dañ cee bëgg a wone par parlo ak jublu ci tiitaroog jublu ci yëkkati bii tuutal bii wala wane ne bii moo gën wala su boobaa loolu moom mooy li ñuy tere kon jàkkay jàkkay yàlla la boo demee ci jàkkay falaata dooma allahi ahad bu fa woo kenn ku dul yàlla est ce que loolu ñu ngi koy pratiquer est ce que ñu ngi koy pratiquer ah pratiquer wuñ ko jàkkay boo fa demee ñu ngi gis rawatina rawatina bu ñu sëlmalee li may wax ni war nañoo def baax si ci Sénégal Sénégalais yi bu ñu sëlmalee façon yi def façon yi ñuy def te duñ def baaqiyaatu saalihaat te gis ku dóor jëbi gis ku ëf fii gis ku ëf ci kaw gis ku ëf suufu poqataan yi gis ku ëf ci loxo yi fii gis ku dóor jëbi gis ku dóor ci suuf gis ku rëdd gis ku lu ngay gis lu ne gis ku dóor lex yeeg gis ku jóg toogaat ak lu ne ne ngay gis gis ku def ay vidéo gis ku def ay point gis kuy jam lu ne ngay gis te yow dañ laa sant rek salaamaaleykum waaleykum salaam sa askar baaqiyaatu saalihaat simple na nite na am na tuyaaba xam-xame na moom la yàlla digle moom la yonent bi digle doo sonn doo ñaq amul énergie booy dégager leneen loo def da ngay dégager énergie boo paree sonn lii ba pare nag doo ci am tuyaaba lii moom da am tuyaaba te amul énergie booy dégager fi nga toog ngay toog gémmiñ ngay wax baaraam yi dem jeex na directo yëkkati woo loxo yoo ah yóbboo gauche yóbboo droite yóbboo milieu bopp bi wéngaloo ko dóoroo sa bopp mbéjoo sa bopp gaañoo sa bopp jamoo dara ba sa baaraam wala mu foxat loolu dara loo ci fekk lu simple la moo bëggul mu diine moom na mystique rek na ñàng bu ñàngee daal ñoom pour ñoom loolu mooy diine diine warta simple sa ñetteel bi anna man ataa ar rasula képp ku topp yonent bi wa waxada allah ñaari ak am solo topp yonent bi ak wéetal yàlla laa yajuuzu lahu mënta dagan ci moom du dagan ci moom te mënta dagan ci moom mu walaatu muy féete muy jàppale muy ànd muy coaliser muy allié muy booloo muy nekk ak muy taqaloo muy duganteeg man xaaddallaha ku noonoog yàlla wa rasulahu ak yonantam tamba walaw kaana donte dafa nekk aqraba qaribin mbokk bi la gën a jege xanaa loolu leer na tayib tegtal bi wa dalil qawluhu taala ca jeexintalu suratul mujaadala borom ne laa tajidu laa tajidu doo fekk mu ko xawman aw nit ñoo xam ne yuminuuna billah gëm yàlla wal yawmil axir alquran dafa bëri almuqaarana ak ar rabtu bayna al imaanu billahi wal yawmil axir li man kaana yarju llaha wal yawmal axir wa zakara llaha kasira tayib laa tajidu qawman doo fekk aw nit ñoo xam ne yuminuuna billah gëm nañ yàlla wal yawmil axir ak bés penc yuwaadduuna ñi am cofeel di sopp di fan di bëgg man xaaddallaha ku noonu ak yàlla wa rasulahu ak yonentam walaw kaanu doonte dañoo nekk aabaahum seeni baay aw abnaahum wala seeni doom aw ixwaanahum wala seeni frère seeni mbokk aw ashiratahum wala li nga xam ne mooy seeni moroom ulaayka ñooñu kataba bind na yàlla bind na fi quluubihim seen xol ya al iman a ngëm loolu mooy ngëm loolu yàlla mooy mën a def ci sa xol ngëm nga mën koo résister sa papa nekk nii nekk nitu bokkaale kat nekk nitu yéeféer nga bañ am ci moom cofeel tey nag da xool jullit ñi ah, dañuy fan ay joueur fan ay basketteur fan ay acteur ah parce que liñ nekk ci àdduna dañ koo mën aay ci rek mu jaral la bu feebaree sax nga jooy bu bu bu bu ko dugalul ci match tennis bi wala basket bi wala football bi nga kaas mer weq ay kii dóor ay mer lu tax mooy waa ji da nga bëgg te dugaluñ ko yow da nga am ci moom benn cofeel fan boo xam ni boo ko gisee day mel ni yonent bi nga gis wala saxaaba yi sa xol day sedd kontaan boo moytuwul mën ngaa yëkkati xaalis maye say sa xol day féex naqari deret dootoo ko def lu mooy benn yéeféer bu weddi yàlla ak yonentam moom nga muy cëppi cëppi loolu moo féexal sa xol da ngaa feebar xol bi fii qulubihim marad xol bi am na feebar. ku wedd yàlla ak yonent bi nga bëgg ko ba jaral la xuloo xeex jaral la foo gi sa xol sedd sa kanam di belli am nga problème laa tajid qawman yuminu billahi wal yawmil axir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulahu xanaa loolu leer na leer na nañ naam donc dafa nekk gën a jege tey mu ni ñooñu wa ayadahum bi ruuhin minhu yàlla moo leen dooleel yàlla daf laay moo moo moo yàlla moo dogal ci ngëm gu dëgër gi waaye moo la dooleel yemu fa wa yudxiluhum suñ borom daf lañu dogal jannatin àjjana tajri yoo xam dafay daw min tax ci suufam al anhaar ay dex xaalidiina fiihaa dañ fay sax yemul foofu radiyallahu anhum yàlla daf leen di gërëm ñoom bu ñëwee dañuy kontaan ci yàlla wa radu anhu ñu gërëm yàlla kontaan ci moom walaayka xisbullah ñoo ñoo ñi féeteeg yàlla nag ñoo ñuy féeteeg yàlla ñoo ñooy ñi ànd ak yàlla ala inna xisballah xanaa xamu leen ñi ànd yàlla humul muflixoon yàlla ko ànd ak moom di nga am problème da texe texe googu alxaafiz albaxawi nee na fi dunia wal axira lakul muflihun nee na falaaxun dunyawi wa uxrawi texe àdduna ak àllaaxira ñu rek texe àllaaxira mais texe ci àdduna ak texe ci àllaaxira iman dafa am yoo xam ne su nekkul ci yow doo am texe fii ci àdduna boo gisee yéeféer yi seen dëkk naat ñu am développement am économie mais nga mën a dégg milliardaire buy xaru mën a dégg directeur entreprise buy xaru am nañ léppi àdduna mais iman lañ amul te iman boo ko amul ah doo gëm ndogal doo gëm natt doo gëm am doo gëm ñàkk na yooyu ci loxo yàlla la nekk doo gëm ne wér ak feebar ci loxo yàlla rek mooy tax lu lay stressé lu lay naqar yi luy tàng sa xol lu lay métti day yomb donte bëri nga alal mais ci sa biir à l'intérieur ci sa biir mu yow ci sa biir doo am satisfaction doo kontaan da ngay mer ah, ay naqar gaaw lu ñàkk fayda bëgg a tukkal sa àdduna ainsi de suite lu tax mooy boo amee ngëm yàlla da ngay xam ne lu la war a dal daf laa war a dal la war a dal waru dal da ngay doylu da ngay wàkkilu ci yàlla da ngay wéeru ci yàlla yàlla ngay yaakaar moom nga dénk si bopp moom nga bàyyee say mbir loolu dafa simple wala a perte ay milliards nga ñëw ne ko gëmal yàlla yàllaa ko dogal cantine ba lakk na ñu ne waaw coffre-fort ba lakk na ñu ne waaw magasin yi lakk na ñu ne waaw oto bi lakk ñu ne waaw ba pare nga gëm yàlla nga dem jàkka ja julit la lépp ba pare nga dem jàkka ja jullit moo ko mën ko ki amul imaan boo ko defee bu alalam lakkoon noonu moom euh, su paree day xool fan lay dem ak ndax day xaru du xaru ah loolu lay lijjanti ak ndax day beru wala du beru wala day réer ay mbokkam wala lay toxu dem beneen dëkk mais jullit bi moom day xam ne ak ngëm yàllaam lii yàllaa ko dogal dogal gi nag mën naa am sabab mën naa am samay bàkkaar la mën naa am yàlla daf may daf ma daf ma bëgg raxas ci ay bàkkaar dafa ma kafaara mën naa am alal ji laa am lu lew lu ci duggul yàlla bëggoon ko génnee jullit bi moom noonu lay demee xaal xalaat boobu pensée boobu lay demee logique boobu alors que ki wedd yàlla du demee noonu moom day jàpp ne tout court torox naa samay samay mbokk ak samay naataangoog samay xarit ak samay àndandoo yi nga xam ni maa ngi ñoom ñoo bokkoon niveau de vie mënatuma ànd ak ñoom dañ may xeeb bis ni ki tey léegi jullit bi moom day gëm ni yàlla ma ko joxoon moo ma ko xaj mën na maa joxaat sax lu ko gën lu ko gën sax mën naa ko amaat li ma amoon mën naa am lu sax par jullit bi imaan boobu lay defee moo tax imaan am solo ki ko amul dafay dafa am lu bëree bëree bëri loo xam ni euh, moo koy manqué moo tax imaan li muy réglé ah lu bëree bëri lu ko réglé loolu moo tax lu mat a bàyyi xel kon fii ñeenti masala euh, ñetti masala yii indi tey bu njëkk bi jubluwaay bi mooy bayaanu wujubi taati taati rasul mooy dafa ñëw pour wan ñu ne war gi mu war ñu topp ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir ne moom la yàlla yoon si ñun mooy yàlla yàlla bind bi ñu bindee bàyyi wu ñu seetaan ñu waaye digal euh, daf ñoo digal am lu mu ñu digal am lu mu ñu tere yónni ci ab yonent ñu war koo topp comme ni mu yónnee woon ci nit ñu fi jiitu woon yonent mu joxe ci misaal waa banu Israil mooy Firawna ak aw nitam ah mooy yonent ba yàlla mbugal leen ñaareel ñaareel bi mooy lépp jubluwaay bi ci masala ñaareel bi mooy ibtaalu shirki fil ibada li mu ci bëgg a wax mooy màbb bokkaale ci jaamu yàlla mooy anna allaha la yarda an yushraka maahu fi ibadati mooy ibtaalu shirki fil ibada mooy màbb ak euh, taj li nga xam ne mooy bokkaale yàlla ci jaamu gi ñu koy jaam wa ihqaaqu tawxidillahi fiiha te wéetal yàlla matal wéetal yàlla ci li nga xam ne mooy tawxidul ibada mooy tere gi yàlla tere ñu koy woo di ko booleeg leneen di ko jaamu di ko booleeg leneen di ko màggal di ko booleeg leneen di ko yaakaar di ko booleeg leneen ah di ko toroxlul di ko booleeg leneen di ko wàkkirul di ko booleeg leneen kon yàlla kenn du ko ñaan kenn du ñaan ku dul yàlla kese ci mbir yi nga xam ne yàlla rek lañ ci war a ñaan moo tax mu ne fala tad'u ma allahi ahada waxoon naa la nag du'a daa am du'a masala am du'a ibada ñaan goo xam ne ñaan gi moom jaamu yàlla yàlla rek lañ koy ñaan ak ñaan goo xam ne ñaanu soxla la soxla googu nit ki mën na ko nit ko nit ki mën na la régleel soxla bi nga ñaan ko nit ki dara néew ci waxoon naa ko da ngay dégg ku ñeme yàlla ku ñàkk a ragal yàlla ku mën a tromper ku malhonnête ku koo xam ne kenn xamul noo koy wasfee toog ci télé ne gars yi ñoom dañuy tere sax ngay saan ngay ñaan ngay ñaan ngay ñaan ku yàlla nee nañ yàlla rek lañu war a ñaan waaw boo soxlawee dem Thiès nag soxla paas nit ki sax doo ko ñaan xam nga loolu loolu il faut nga malhonnête il faut nga nekk triant wala un trompeur pour mën a wax loolu borom xam dañoo tàqale masala yi ñaan dafa am loo xam ne yàlla rek lañ koy ñaan gudd fan yàlla rek lañ koy ñaan parce que nit mënul mayee gudd fan boo doon mayee gudd fan sa famille kenn du dee wala déet wërsëg kenn du ko ñaan ku dul yàlla wér-gu-yaram kenn du ko ñaan ku dul yàlla sax ngaa ñaan nit ki ne ko ma ma am wér-gu-yaram mais may ma wér-gu-yaram wér-gu-yaram nekkul ci loxo nit ki moom la koy may ci loxo yàlla rek loolu yàlla lañ koy ñaan kon ràññee li ñuy ñaan yàlla ak li ñuy ñaan nit li ñuy ñaan yàlla ñaan googu jaamu yàlla la boo ko ñaanee yàlla jaamu yàlla la léegi loo xam ne ñaan ko yàlla jaamu yàlla la soo ko ñaanee ku dul yàlla lan lay doon bokkaale shirk lay doon léegi ñoom problème lañ am pour ràññee ñaar yooyu te borom xam fi dañ koo leeral ba leer ñetteel bi li mu jubloo leeral mooy bayaanu wujubu baraati al muslim min ashirki wal mushrikin mooy leeral ne jullit bi dafa war a set wecc ci bokkaalekat bi ak jëmmi bokkaale ñaar yi gis ngeen ñaar yi am différence dafa war a set ci bokkaale mooy lan mooy jëfi bokkaale amalu shirk mooy waxi bokkaale jëfi bokkaale pas-pasu bokkaale moom nit ci rek ci setal boppam loolu mooy jëf ji waaye wa minal mushrikin bokkaalekat yi ak lépp loo xam ne yëfu bokkaale da cee ñaar la mooy da ngay set ci jëfu bokkaale set ci nit ñi nit bokkaale jëfi bokkaale wax pas-pas ak li nga xam ne moom mooy jëf da ciy set mooy jëf bokkaale bi mais nitu bokkaale kat da ngay set da ngay am ci moom baraa set ci moom lu tax mooy mu bañ laa wàll shirkam set ci moom lu tax mooy sori ko parce que bokk leen yoon yow yow ci yoonu imaan nga moom nekk ci loolu moom la jublu woon leeral ci li nga xam ne mooy loolu moo tax mu ni laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmil axiri yuwaadduuna man xadda allaha wa rasuula doo fekk gëm yàlla ak yoon ak bés pénc mooy sopp di bëgg di ànd ak di féeteeg di nekk ak koo xam dafa noonoog yàlla ak yonantam dafa noonoog yàlla ak yonantam loolu mooy li nga xam ni mooy ñeenti masala yi nga xam ne wala ñetti masala yi nga xam ne indi na ko tey ci daars tey bi te loolu mooy jubluwaay bi hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain kon dañuy taxawandi foofu tey insha allahu taala